يصلون تاني جولي في الصباح تي صبح صلاة الصبح جولي صبح وفي الظهر تي تسبار صلاة الظهر جولي تسبار وبعد الظهر غناو تسبار تام ني صلاة العصر جولي تكسان وعند غروب الشمس اكفا سوخ جانت صلاة المغرب جولي تويس وفي الليل تي غودي صلاة العشاء جولي كيه jullit ñi daañu taxaw fi kanam yàlla juróomi woon ci guddi gi bëccëg bi bu ca nekk am julli bu ñuy joox muy ndigal bu julli suba ak julli tisbaar ak takkusaan ak timis ak gée ci niñ ko miine ci seeni waxtu qabla salaati njëkk julli na tawaddau dana nu jàpp fa naxsilu te ñuy raxas ay diyanaa sunuy loxo wa famanaa ak sunu gimiñ وأنفنا أكسن بكن ووجهنا أكسن كنم وأيدينا أكسن لخو إلى المرفقين بچناري چونجيا ونمسح تني مسا على رؤوسنا جسن بوب وأذنينا أكسن نار نوب ونختم تني مطلي بغسل أرجلنا جرح سني تانك إلى الكعبين بچي نار دجريا وهكذا نكني nu nazifu dana nu setal jismana sunu yaram xam sa marraat juróomi yoon fi mi ci bis bi fata xifu tey woyof xadalaatuna sunu yàpp yaram sunuy cër wan setu dañuy sawar lil xamali jëm ci liggéey julli gu bala na ko julli bu fekkee ne ab bu fekkee amul woon jàpp dañuy jàpp door julli jàpp nag boo koy def dangay raxas loxo yi galaxndiku saraxndiku raxas kanam raxas loxo yi bu njëkk bi moom ca tàmbali ba rek la mu yemoon ci fi ñi takk montar mbaa bu jiiru fa mu takk jara gannaaw raxas kanam dañuy raxas suñuy loxo bu ci nekk bu ëmb concee tuuti bu loxo yi noppee nu masaa suñu bopp jàll masaa suñu nopp li ci mujj nag mooy raxas tànkum ndeyjoor ak tànkum càmmoñ kon boo ko seetloo nee na bés bu nekk bu fekkee julli gu ne jàppal nan ko kon mën nga ni daanu setal sunu yaram juróomi yoon te yaram moom set ga day tax cër yi sawara yaram woyof nga mën a jëm ci def li nga bëgg a def waxinda salaati fa julli ga laa natakallamu duñu wax wala naltafitu te duñu geestu laa yamnatan du ci wetu ndeyjoor wala yasratan du ci wetu càmmooñ wala nastaxilu te duñu soxlawoo bi xayri salaati ci lu julli ga ne buñ julli julli dañ koy fonk ba doo ci wax lu bokkut ak lu aju ci julli dañuy bañ itam kuy julli di geestu ci wet ndeyjoor mbaa wetu càmmooñ mbaa mu yittewoo dara lu bokkut ak julli ga naqifu danañ taxaw fi salaati ci julli ga mutasaafiina mbir mu ñu way sàppe xaashihiina tey way ragal yàlla raakihiina tey way rukkoo lillaahi ngir yàlla saajidiina tey way sujjóot shaakiriina mbir mu ñu way sant loxo ñeel yàlla maa li nga xam ne anxama xéewle na bii ci moom xale naa ci nun taalibiina mbir mu ñu way sàkku min ci moom almasiida ndolleen saa iliina mbir mu ñu way ñaan di ñaan yàlla añ yaxfira mu jéggal la naa ñeel nu maa la nga xam ne adnab naahu bàkkaaru nanu ko buñ dee julli te nekk mbooloo dañu def ay sàppe ànd toroxlu di rëkkoo di sujjóot di sant yàlla ci li mënu xéewale di sàkku ci moom mu dollinu di ko ñaanit mu jéggal nu li ñuy tooñ ndax matalik doomi aadama inna salaata naka julli a'zamul ibadaati mooy gën jaa màggi jaamu yàlla yi fal nu xaafis nan sàmmoonte ala qiyaaminaa ci sunu taxaw bihaa ci moom julli fi waqtihaa ci waxtoom wa wal nu addihaa te nan ko jox bi kulli xushoohin ànd ak gépp ragal yàlla wa sakiinat akuk dal wa waqaarin akuk wegu julli mboolem xeeti jaamu yàlla yi moo ci gën a màgg julli mboolem xeti jaamu yalla yi mo ci gëna mag xamni bu gëm yalla weesoo rek mo gëna mag ci l'islam kon nag nan lu di samonté ak mom diko def ci waxtoom te buñ koy def ànd ak ragal yalla akuk dal akuk yaruté akuk yaru bu baax ci kanam ad-darsu at-thaniya hashar jarasul madrasati سمرب أكل bi maada yaquulu lan lay wax aljarasu samari bi maada yaquulu lan lay wax aljarasu samari bi day wax rin rin rin rin rin rin yaquul daa bëgg a wax yaa awlaad yi yéen samay doom yaa amalal bilaadi yéen yaakaari réew mi hayya gaaw leen ila duroosi jëm ci leçon yi muslihatin nufusi ay aji defar bakani sunu sunna bu dee nonu muy tëggee bu sunu sunna école bi la mom day wax xalé yi nga xam ñoy jang ci na leen yeen kat ëllëg yeen la rew mu yaakar ci ngeen defar ko kon nak ñew leen jang leçon yi nga xamne moy defar seeni bakkan ba bu ëllëgee ngeen mëna defar rew mi ko defé rin rin rin rin réem réem réem wastaxiloo na ngeen soxlawoo bi jiddin ci ak farlu fi kulli shayin ci mépp mbir mujj din muy aji mu am jëriñ mu ne na leen jaral ngeen sonn ca bu baax a baax taallamoo jàng leen sixaaran mbir mu ngeen di ay gone li tas xadoo ngir ngeen texe kibaaran mbir mu ngeen di ay mag bi ngeen tolo ni ci ngone da ngeen jang bu baax baax ndax bis bi ngeen doone mag dundu dundu gu neex ànd ak texe li urin wax bonheur rin rin rin rin rin rin wajj taxidoo na ngeen farlu fi kulli fan yéen ci gep fan li tax bu mo ngir ngeen mëna bi ci moom alwatan réew ma faqidmatul awtani lëggéeyal réew ya fardun farata la alal insaani ci nit mboolem xeeti fànni xam-xam yeeg fànni xarala yi na ngeen ci góorgóorlu ba mën ko bu baax ndax ngeen mën a lëggéeyal réew mi bu ëllëgee ndax kat nit ku ne farata la ci moom mu lëggéeyal réew ma ko yàlla boole ak darsu ak taalisa achar ak darraajatu welo ishtara jëndoon na lii ñeel ma waalidi sama baay darraajatan welo jamilatun bi aji rafet hiya mom darajatun wala la sahiratun bu ndaw walakin ha way mom kad darajati mi ngi mel nek wala ba al kabirati bi aji mage fiha nek na ci mom miqwadun bar wa naqusun ak kalakson wala ha ñal nako daw satan ñaari pedal wa xajalataani ak ñaari puna sama baye dama jëndal welo bu rafet rafet wala bu ndaw la waaye daa mel ne welo bu mag ndax am na fooy jàpp muy baar bi am na klaxon am na ñaari pédale am na ñaari pneu alla mat nii jàngal na ma waalidati sama yaay kay fa arkabuha naka laa koy ware duna an asquta ci lu dul may daanu min fawqiha bàyyi ko ci kawam wa aw sat nii te mu dénk ma an asira may dox biha ak moom fii xëyri surxatin ci dul ak gaaw wa an la ajhada ak ma baña sonal nafsi sama bakan nafsi sa bop wa ana ta fek na man arkabuha mang koy war sama yaay moma jangal dama koy waré té duma daanu mu denk ma it nay dox ndank rek ak wolo bi waye buma daw bu baakha baax bu denk ma it may baña sonal sa bop ciono bo xamni man na ñak nga xolaat nak baatu wa an la ajhada nafsi dafa mel ne li gën a yell mooy wa an laa ujhida ujhida nafsi atoofu danaa wër bi darajaati ak sama welo wi daaxila xadiqatil bayti ci biir jardin kër gi wala ataxadda te duma jéggi biha ak moom alxadiqata jardin ba damay nekk rek ci biir kër gi ci biir jardin kër gi yor welo bi waaye nag du ma weesoog moom jardin bi la arkabuha duma ko war xaarijal bayti ci bitti kër gi xaw fan ngir ragal min an taddoo sani ci ma may dër asayaarat oto ya al marratu aji romb fi shawaarihi ci riiw yi muy mbedd yi wala arkabuha te duma ko war daaxila xurfati naw mi ci biir sàmbaru tëdd ga aw xaaxati taxaami wala saalu lekk ba la aksira ba duma dammate asaatal bayti maagoli kër gi aw astadima wala may fengoo bil juduraani ca miir ya dama yor wala mukk génn ci biti di aw ci mbedd mi ndax ragal kon oto yi dal ci saa ba tey néeg bi ñu tëdd mbaa néeg bi ñuy lekkee du ci war mukk welo gi ci biiram déedéet ndax bëgguma yàqte mooy bali kër gi walla may dal ci miir bi uhibbu danaa sopp daraajat yi sama bi wa uxaafidu damay sàmmoonte alayha ci moom wala arkabuha te duma ko war illa ayyaamal xottali dara ci fani feed ya al ko jóg école loolu bi daal bëgg naa ko lool di ko perte bu baax waaye bi ci feeti rek bi ci nga xam ne école bi du ko jàngale dañ ci noppu rek ci laa koy war ak darsu arrabiha hachar assaahatu montar lii ñeel na ma fil bayti ca néeba saaxatu montar enrifu boobu tanaa xam yi min ca moom mii ha dal madrasati waxtu dem école xëy moom saaxatum la mu daw waratum di buñ kupp ndal boo xam dafa ron wa bi xaa nekk na ci moom xaqarabaani ñaari egg yi ay eggu waaxilun benn saxirun bu ndaw yu siir ba dana junj ila saa ila saaxaatu waxtu ya yataxarraku dana yëngutu fii nihaayati saaxaati ci matuk waxtu wa